daarul xuraan ca Touba daawu marnaan ci njiital Serigne Mactar Diène di daara junu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru seng ay ndongo yu bari mokkal fa alxuraanul karim daara jay dox boobaak léegi ak jéego yu am solo macha allah ak ñaanuk Serigne Saliou Mbacke xaadimu rasul mu nekk léegi complexe scolaire franco arabe bu méngook jamono état bu Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneeni langue majalis yeneeni xeeti xam-xam ak njàngale métier di formation professionnelle muy complexe scolaire franco arabe maam awolo ca daaru marnaan ci njiital Serigne Mactar Diène am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire ndongo yi di fa génne ki lijaasay certificat d'études BFM ak baccalauréat di diplôme d'état daara ji li ko tax a jóg nag mooy jàngale xam-xam ni ko ku tedd ki Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee complexe Mame Awa Lo ca Daaru Marnaan taaru lool ànd ak bépp jumtukaay bu ndongo yi soxla ci seenaw nekkin ak jàng ay taax yu mucc ay bloc A ba ñu duppeekoo Daaru Alimu Kabir bloc B bi Njéene Lagan bloc C bi Touba Xelkom ak complexe scolaire franco-arabe Mame Awa ci njiital Serigne Mactar Diène njàngale mu mucc ayib ak ay jàngalekat yu xereñ lool yéen waajuru ndongo yi su ngeen bëggalee seen njaboot njàng mu baax ak avenir bu mucc ayib jokkoo ak ñoom mbindu mi tàmbali na weeru août ubbiteg école bi weeru octobre incha allah ngir jokkoo gi 33 978 90 90 wala 33 978 90 91 77 256 12 82 wala 77 404 99 03 complexe franco arabe Mam Awolo ak njiit la Serigne Maktar Diène di ñaan xalifa bu tedd bi sëriñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi lool te ànd ak wér xayra yët daaray ni yëddu bari féetéerlu li koy yóbbe nit mooy ñàkk xam la lay xaar ëllëg ñàkk xam ne fi yàllay teg doomi aadama nekkul ci ak féetéerlu waaye fi yàllay teg doomi aadama mi ngi ci ragal yàlla ak xam-xam moo tax bi teeloon wax ne waalam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira nee na nit ñi ci xam-xam ak diine ci la ñu ci xam-xam ak diine ci li nit di gën koy gën waaye li nit di yég boppam ba tax mu yëg li nit di am ba tax mu yëg boppam muy am-am muy alal di xam-xam di yëg di yëg-yëg di daraja diw sant sëñ Tuubaa nee na loola maanaa nekkul lu nit di gën kenn nee na li nit di gëne nit mooy xam-xam ak ragal yàlla moo tax si waaye wala wala falkat ba waxoon na ne ab juddu la kat mëtta damoo ragal yàlla mata damoo te ko am du ko damoo kon xam-xam ak ragal yàlla moom la nit ñi damoo ndax moo tax imaam ali waxoon ca wala falam ba ca ca ya di wax ne annaasu min jihati tamsili ak faawu aboohumu aadamu wal ummu xawwaaw nee na nit ñépp ci wàllu misaal ay nawle lañu seen baay mooy aadama seen yaay mooy xawa wa in atayta bi faxrin min dawi xasabin yu faaxiroona bihi fattiin wal maaw soo yëgee sa bopp bay ndamoo ko rëy rëylu ci kaw nit ñi na xam ne ñun ñépp ci tii maanaam banag ndox ci lañ ci lañ soqi ko fa fus bi ilmin ta'ish bi bihi abada annaasu mawta wa ahlul ilmi ahyaaw fexeel ba am xam-xam moo lay may ngay dund ba faw ndax nit ñey faatu waaye borom xam-xam yi dañuy dund ba faw kon nag Sëriñ Tuubaa nee na woon ku bëgg mucc ci féetéerlu ku mëgg mucc ci yëg sa bopp demal nga sàkku ji xam-xam yemul foofu moom sëñ bi dem na bay wax na ci wàllu réer gi nee na boo ragalee gàcc ak ragal gàcc ak demal nga sàkku ji xam-xam yaa machara subbaani in xiftum xajal fa qaddimoo taalluman ala amal yéen waxambaane yi soo ngeen ragalee gàcc ak adduna bii ragal gàcc ak yow yowm alqiyaam demal nga sàkku ji xam-xam gàcc ak na nag mbokk yi yàlla nañ ci yàlla musal waaye gàcc ak ëllëg yowm alqiyaam moo ca rawati yàlla nañ ci yàlla musal moom gàcce ak àdduna fii nag rawut rawut samp sa kër te xamoo dara samp sa kër te xamoo dara dara dara dara bu yàggut la laa xam ne ndeke bari nañu samp seen kër te mokkaluñ sortu fatiha samp sa kër te fatiha mënoo koo tare kër goo xam ne ka ko samp xamul dara takk ñu xamul dara jur ñu xamul dara muy kër këru ñu xamul dara am na loolu mooy gàcc ak fii sa sa sa nawle yi nga nekkal ci kër gi muy sa njaboot di say soxna bu ñu amee ak réere ci diina laaj la looy wax nañ dem ci bay diw bay diw gën na loo demeen ba nga waree sàkku ji xam-xam da nga koo defut moo tax Sëñ Tuubaa teeloon a wax ne yow mbaxabaane yi boo ragalee gàcca fii ci adduna di góor demal nga sàkku ji xam-xam boo dee jigéen it boo ragalee gàcce fii demal sàkku ji xam-xam ndax dégg nañ fi loo xam ne yàlla na yàlla musal ci jigéen jum dalagul dégg nañ fi jigéen joo xam ne sëy naag diw ba sëy ba diw faatu ba mu koy muuru lañ koy doog jàngal nu muy jàppe <laughs> xalaas xam nga ne nit ku xamul nu muy jàppe xam nga ne xamul nu muy sangoo set kon ci sobe la ànd ak góor gi ba ni mu faatoo loolu mooy gàcce fii yomal fii ci àdduna di xaar nag gàcce ak ëllëg yomal xiyaam bu la yàlla baalut donte ci njëgalu yàlla lañ ñaar ñun ñëpp kon gis ngeen ne réer gii nga xam ne nii day indi tooñ day andi ak féetéerlu day indi nit yëg boppam sëñ Tuubaa teeloon na ko saafara kon day mel ne lii des mooy ñàkk dégg am njàngaleem waaye ku dégg am njàngaleem danga mën a jar ci yoon yàlla yàlla dimbale ci loolu dañuy tënk rek ñaareel ba mooy li ñu tuddee ñàkkum liggéey ñàkk liggéey li ñu tuddee semence bi loola bokk na ci jafe-jafe yi ñu dund ci jamono ji ñu toll gis nga mbokk yi ñàkk liggéey fu mu am dana jur yi muy jur bari na waaye ñett yi may waaj wax gën na ca nit bu amul liggéey barab barab boo xam ña fa nekk dañoo bari lool doon ay ndaw yu toll seen diggu doole te amuñu liggéey dana jur ñàkk sécurité maanaam société ba pour sécurité am fa du yomb ndax nit faw mu tënku ci dara wala lu jóg yóbbale ko kon ñàkk liggéey dana indi insécurité bi nekk ci société ñàkk liggéey da koy jur benn ñaareel ba ñàkk liggéey dana jur fomm mu bari ak i caaxaan ndax am poñaare ku tënku di xëy am am di am am xëy di am ci loo nekk te loola doon loo xam ne boo ca téewul du sotti gunda gumba am na mbécce mu dul tabikam kon nit bu su am su amulum xëy rek dana ko jural ampo ak i caaxaan mu tasaaroo waaye ñàkk léegi dana jur nit ku tënkuwul lu jóg yóbbaale ko mbooloo mu am nga bokk ca loo gis dugal ca sa sa loxo fu ne nga dugal fa sa tànk loolu lépp ñàkk tënku ko indi ak ñàkk léegi léeg-léeg njaboot gi ñuy jàmbat naan ku Sénégal mooy réew moo xam ne loo fi sos am mbooloo loo fi sos rek am mbooloo loolu lépp na lay jë lay baril mbooloo ma muy ñàkk liggéey ñàkk am xëy day waral loo sos bari ndax amoon na fi bu yàggut benn kuréel boo xam ne kuréel bi ci boppam bokk ci ak kéefar la ndax kuréel bi gëmuñu ne yow xiyam am na gëmuñ ne bis penc am na te kuréel boobee ba ñuy lancé seen seen seen coste mooy ba ñu ba ñuy sosu mbooloo mu baree fa teew. loolu mooy wane ne Sénégal mooy réew moo xam ne lu fi soos nit sos am mbooloo la koy jur mooy lan mooy ñàkk am xëy ñàkk liggéey kon ñàkk liggéey dina jur ñett yu ñàkk sécurité fo mu bari ak yi caaxaan ak mboolo ak lu juddu am mbooloo loolu lépp bu nit ñi tënkuwoon ci seen i liggéey nekk ci lañu nekk maanaa lam leen di gàllankoor la ñuy nekk dañ leen gàllankoor ba ba yooyu du am looloo taxoon nag Sëñ Tuubaa ci doon wax ne ñàkkum xëy bokk na ci li koy jur mooy di xeeb liggéey sëñ mi nee na woon ci njàngaleem na ngay farlu ci sàkku lu lew sëñ Tuubaa buy buy buy santaane liggéey sàkku lu lew la koy jàpp la la lay wax sàkku lu lew nag foo mën a amee lu lew rek baax na doo xeeb benn liggéey xeeb ab liggéey dana jural nit jafe-jafe yoo xam ne ci dundam lu ne mën na ca dugg xeeb liggéey dana jural nit mu bàyyi am réewam dugg ci ndox mi xeeb ab liggéey dana jural nit mu bàyyi ab liggéeyam dugg ci ay loxoor xeeb ab liggéey dana jural nit mu bàyyi ab ab liggéeyam dugg ci carte gi carte gaa ngi tasaaroo lool ci réew mi surtout li ñu tuddee naar bi nga xam ne ñëpp a ci yooyu yëpp ay kart la loolu lépp na ñàkk liggéey moo koy jur dañ bàyyi naar bi sëñ Tuubaa nee na woon nañuy farlu ci sàkku lu lew sàkku lu lew nag foo ko mën a amee rek baax na liggéey boo mën a amee lu lew rek baax na na liggéey ci lislaam ñeenti xeeti liggéey moo am yoo xam ne maanaam yi lislaam reconnaître ñeent la mboolem xeeti liggéey yépp boo ko tojee mu dellu ci ñeenti liggéey yu mooy li ñu tuddee at tijaara al ijaara as sinaa as loolu ci wolof mooy lan at tijaara mooy wàllu yaxantu li ci mën a dugg ci liggéey bari na al ijaara mooy di liggéey fenn ñu lay fay li ci mën a dugg ci liggéey bari na asinaa mooy jàng métier ba mokkal ko di ca fayu li ci mën a dugg ci liggéey bari na aziraa mooy wàllu agriculture wàllu may li ci mën a dugg ci liggéey bari na mboolem liggéey bu génn ñeenti ñeenti xeeti liggéey nii dañ koy teg ci misaanu sari ngir xool ba xam sari nangu na kon nit ki sëñ Tuubaa nee na woon demal nga sàkku ji lu lew nit kuy sàkku lu lew nag fu mën a amee lu lew rek bu ko xeeb ndax àdduna kenn du fi doyal dañ fiy doylu sàkku leneen boo amoon boo nekkoon milliardaires yi ñoo la gën a bëgg alal kenn du fi doyal lu lu lu du doyal nag dañ ciy doylu te sëñ Tuubaa nañ bàyyi xel ci ne lu liwul bokkul lu liwul bokkul nit mën na am gëm-gëmu ne fexeel ba am rek boo ñëwee tabaxal jàkka tey joxe addiya déedéet demewul noonu sëriñ Tuubaa lu lewul bokkul lew ak dagan nag bokkuñu lew ak dagan bokkuñu nañ ko nañ bàyyi xel ci ne bokkuñu mbir mën naa daggan lew yàlla nañ ko yàlla defal léeg-léeg du dagan du lew léeg-léeg mu dagan te du lew léeg-léeg mu lew te du dagan bu ma la doon jox misaal rek moo mën a jàpp li dagan ba noppi lew mooy sa xar mi nga moom ba noppi rendi ko sa mi nga moom ba noppi ko dagan na ndax rendi nga ko lew na it ndax yaa ko moom li dëgganul ba noppi liwut mooy mbaamum jàmbur moo ren dëgganul ndax ren di mbaam du tax nga jëfandikoo ko lewti ndax moomu ko li lew te dëgganut mooy sa mbaam mi nga rendi yaa ko moom lew na la waaye dëgganul ndax doo ko lekk li dagan te liwut mooy xarum jàmbur moo rendi daggan na ndax rendi nga waaye liwut nag ndax moomu ko sëñ Tuubaa nag lépp lu ñuy tudd ngir moom daa war daggan ba noppi lew léggéey bi ngay liggéey sëñ tubaan nee na lépp lool lekk loola ngay def kuy lekk lu dagan lu baax lay def kuy lekk lu xaraam lu bon lay def bu ko bëggee bu ko bëggul kuy lekk lu lënt it lu lënt lay def kon looy liggéey na lew looy def ci sa biir na lew biir dañuy faral wax ne kaso la kaso la ci zahir ak batin kaso la ci zahir mooy mooy loo cay def na set wicc mooy tax nga sàmm sa wér-gi-yaram waaye kaso la it ci batin loo cay dugal lekk la nga lekk ak lekk mu xañ la jaamu yàlla Saadu ne Abi Waqaas mas naa ñaan Sayyidna Muhammad ne ko ñaanama lu ma ñaan yàlla na ko sallallahu alayhi wa sallam lu ko sang ba wax ne ko atib matta amaka te kun mustajaaba daawa fexeel ba looy lekk mu lew loo ñaan yàlla nangu nit ku bëgg ku bëgg ku bëgg loo ñaan yàlla nangu li ngay lekk day lew kon sëñ Tuubaa nee na lu lewul bokkut sàkku lu lew mooy li nga xam ne mooy nit ki bu fekkee ne la mën a amee lu lew mu góorgóorlu ca alal moom kenn du ci doyam ku la ko ëppale moo la ko gën a bëgg te alal damay faral di wax ne li ci sëñ Fallu Mbàkke doon wax rek doy na tënk nee nañ sëñ Fallu doon na wax ne alal jal ko jël ko jeel ko jafe na te jàll jalaluhoo jëlluwu la ñu jël la jal la jaal la jël ko jeel ko nee na jal ko mu doonub jóor ba noppi jël ko ba mu jeex takk doo door a dem loola def ko jafe na def ko te jàll jëlaloo jëlluwu la mooy suñu borom jëlluwu la ñu jël la jàll la ndax dañ lay suul jaal la ndax dañ lay miraas jël ko waa jaal la ba noppi jël ko jël ko ndax dañ koy miraas moo tax mu ne jal ko jël ko jeel ko jafe na te jàll jalaluhu jëlluwu la ñu jël la jàll la jaal la jël ko jeel ko ginnaaw alal noonu la mel nag nag li ngay sàkku na lew bëgg nag nu la neex amee dana waral nit ne faw ma dugg ci ndox mi faw ma am te te boo faw ma am te yàlla niwul danga am da ngay sonal sa bopp ndax wërsëg moom bokk na ci li nga xam ne xam na taab mayu ñu dugg ci waaye hadis sayyidna Muhammad bi wax ne nit ki bala moo judd yàlla def na ci biirum ndeyam lam war a am moo tax waykat ba nee na woon aqsir anaaka fa inna risqa munqasimun yati ilayka walaw fii jabhatil asadi defal ndànk ndax wërsëg waa ngi ñëw bu nekkoon ci jéeb day gay na da nga ci jot loolu mu ne su cee guddal xam naa ma ñëw ci tomb mujj bi ndax li ñu joxoon ci waxtu mi ngi waaye xam nga ne waxin wi li ko tax a bar mooy rek li nga bëgg a wax mënut a xaj ci kii bi li ci li bi ci des nga xam mooy jafe-jafe la boo xam moo ci mujj ci ma ci ñu waajal rek ngeen jotaay bi mooy ñàkk dal gi nekk ci ndaw ñi violence bi nga xam ne dafa tasaaroo ci biir société bi ñàkk dal googu it li muy jur bari na lool waaye ñett a ngi nii yoo xam mën na cee juddoo am réew bu amatuk dal dana xañ waa réew ma ñàkk mbañum rus te nit nag mbañ murus mooy tax mu rus def yenn yi nit bu amul kersa lu ko neex def yan yàlla musal ci société boo xam ne dem nañ ba amatuñ kersa société kersa mooy tax nit nit ragal a def yenn yi nit bu amul kersa ida lam tastahi fasna ma shi'ta bu amul kersa loo neex def kon ñàkk dal ci am réew dana jur ñàkk kersa ñàkk dal ci am réew dana jur xotti worma yi kenn du faaleti kenn kenn du joxati kenn cër ñépp bokk yam koo wax ñu sànni ci moom baat yu ñaaw koo wax ñu wax ci moom lu dul noona moo xam jàkkaarloo moom moo xam nëbbu ci ginnaaw dara di wax loolu lépp ñàkk dal dana ko andi ci mbiram ñàkk dal dana andi ci mbiram bi ci mujj mooy yanu ay xàq ëllëg yomal xiyam gis nga fii gis nga yomal xiyam adduna bii nit mën naa liggéey lu baax lool ëllëg mu fay ko nit ñi yal ci yàlla musal loolu lépp ñàkk dal moo koy indi ci réew ñàkk dal googu nag ñaare li koy indi mooy bëgg loo am te bëgg loo am nag yéeneente ko da caa baax loolu nag dama ciy tënk rek ay bayit ndax jotaay bi jeex na Sëriñ Tuubaa nee na lii tax nit di xëccoo lii tax nit du xëcc di xëccoo maanaa mooy man man a man a bu dul man du kenn ci njàngaleem fi ne sëñ bi ñi muy yar ku jël am njàngaleem lu nit di xëccoo nga bàyyee ko moom te nit ñi li ñuy xëcc soo leen ko bàyyee ñuy jox la ko waaye booy xëcc ñuy xëcc waaye fi ne nit bu ñëwoon fii tey bu naree toog su toogal ci kaw la ñuy wax maanaam nit ñi buy xëcc dara da nga ko koy bàyyee dala koy ma buy buy xëcc da bokk ko bàyyee mu far la ko jox moo tax sëñ bi teeloon a wax ne wallaa tabaagadu wala taxaasadu wa fi lladi yunmil huda taadadu bu leen bañante bu leen iñaanante lépp luy yëkkati njub na ngeen ci nekk wala tanaasaxoo fa inna dunya taalibuha laysa yarum musaaya bu leen xëccoo mukk te xam ne àdduna bii ki koy ki ki xëccoo ki xëccoo ci àdduna bii du mën a def lu jag te ay nit buñ bokkee dara moo xam société bu ñuy liggéey la moo xam entreprise bu ñu nekk la moo xam lu ñu xëccoo buñ ko yéenante wut yàlla xañ leen ko joxe nañ ci mel ni misaal mu doy waar moo xam ne ñett ñu génnoon di dox ñett ñu génnoon di dox ay nit buñ bekk buñ bokkee dara dañ koy yéenante waaye buñ ko yéenante wu yàlla xañ leen Ah, ñett ñi dañoo gën di dox dem ba ci yoon ma for alal alal jiñ for nag kenn yéenuwu ko morom ñu dem ba ci yoon ñu daal di xiif daal ne nañ dem ba ci barab sàngam bu ne ba barab sàngam nañ jënd luñ lekk léegi ñu dem ba ci barab sangam ñu yéen ni kenn mu jënd luñ lekk ba koo ko génnee ñu daal ne bu ñëwee nañ ko rey ñun ñaar ñu séddoo ko ndax ñaar séddoo moo gën a doon ñett di séddoo waa ji it génn jënd lekk ga daal ne naa ci def tooke bu ma demee jox leen ko ñu lekk ndax kenn jël moo gën a doon ñett di ko séddoo kenn ku ne am na yéene ni man dong kenn du bokk waa ji jënd ñam ba def ca tooke egg si xaaruñ mu astadiku ndax nee bu egsee ñu ko ñu daal di koy rey ba ñu ko reyee kan wa leen di wax ne ñam bi tookee ngi ñu jël ñam ba lekk ko dee ñoom ñëpp a dee alal jëne xewi xoole ay nit buñ seqee dara te yéeneente woon ko yàlla far leen ko xañ moo tax taxoon nag lii lépp nag sëñ bi tënkoon na ko ci aw bayit yàlla ñu ko yàlla fayal sëñ Tuubaa bi muy leeral ñu baax ña nee na woon wa kashafoo bi junnatal afaaqi bil ilmi wal amali wal wifaaqi ñett yi ma doon wax yëpp dugg na ci bayit bi nee na sahabatul kiram jafe-jafe yi amoon ci jamono ñoom saa réglé woon nañ ko lu ko regle bil ilmi ci sàkku ji xam-xam mu dàq ak réer wal amali ak liggéey mu dàq ñàkk liggéey wala faaq yi ak dëppoo ci seen biir kon bu ma doon résimé li ma doon wax lépp mbokk yi mooy lan nañ xam ne kon ak réer fu mu nekk jàmm tuxoo fa ak ñàkk liggéey fu mu nekk jàmm tuxoo fa yëg ma ma maanaam ñàkk dal fu mu nekk ci am réew jàmm tuxoo fa yii yëpp nag ci njàngalem sëñ Tuubaa gis ngeen ni ko sëñ bi leeralee yàlla nañ ko yàlla fayal xam naa waxtu yi moo moo ñu xoj ba mënuñu mënuñu xaabaabal waaye yaakaar ngeen junj bi comme ay ay nit la ñu waxal yoo xam ne ay intellectuel lañ yàlla suñu borom may ñu dégg ko topp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk jullit yi daarul xuraan ca Touba Daaru Marnaan ci njiital Serigne Mactar Diène di daara ju nu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru seng ay ndongo yu bari mokkal fa alxuraanul karim daara jay dox boobaak léegi ak jéego yu am solo macha allah ak ñaanuk Serigne Saliou Mbacke xaadimu rasul mu nekk léegi complexe scolaire franco arabe bu méngoog jamono état bu Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneeni langue majalis yeneeni xeeti xam ak njàngale métier di formation professionnelle muy complexe scolaire franco-arabe Maam Awa Lo ca Daaru Maxnaan ci njiital Serigne Maktaax Jenn am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire ndongo yi di fa génne ki lijaase certificat d'études BFM ak baccalauréat di diplôme d'état daara ji li ko tax a jóg nag mooy jàngale xam-xam ni ko ku tedd ki Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee complexe Maam Awa Lo ca Daaru Marnaan taaru lool ànd ak bépp jumtukaay bu ndongo yi soxla ci seenaw nekkin ak jàng ay taax yu mucc ay bloc A ba ñu duppee Daaru Alimu bi Njéene Lagan bloc C koom ak complexe scolaire franco-arabe Mam Awolo ci njiital Serigne Makhtar Diène njàngale mu mucc ayib ak ay jàngalekat yu xereñ lool yéen waajuru ndongo yi su ngeen bëggalee seen njaboot njàng mu baax ak avenir bu mucc ayib jokkooleen ak ñoom mbind mi na weeru août ubbiteg école bi weeru octobre incha allah ngir jokkoo gi 33 978 90 90 wala 33 978 90 91 77 wala Touba complexe scolaire franco-arabe Mam Awa Lo ak njiit la Serigne Mactar Diène di ñaan xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké yàgg fi lool te ànd ak wér